برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجلفيد تيجان جخن نينان سلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بقي لي نيان رك موي fuqaaw yeeg ñu ñuy tuddee ñu xaw jéggi dayoog wala ñu tuddee seen bopp jaamu yàllaat wallaay intégrité ak nangam nangam ak ñëpp nañu baal xam ne muxtaaru tisbaar quatre heures la yem kon nag bu ñu lëjal ak julli nañ ne tekk ba bi jeex muxtaar maa ngi jeex quatre heures ku jàng fekk xam nga ko waxuma daru bi nag àgguma ci daru yi ba te jënt sa yett si baa door a wéy mbokk yi bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi xadaratul imam al akbar ñu ngi nuyu le grand imam de Dakar Hadj Malick Sylla sama mag sama xarit président imam yeeg ulamaaw yépp di nuyu sama mag son excellence xaaj Moustapha Ahmed Cissé xalifa de Pire conseiller spécial de chef de l'État di ko jaarale ci sama doom yi mu yebal ñu di ay doomam ah, di nuyu ah, Serigne Jugaare mu ñu ormal nga xam ne yàlla rek ko ñor di nuyu imaamu koñ bi muy imaam noox ñaabel muy imaamu juma jile te nekk kilifa koñ bi di nuyu sama rak sama xarit oustaz Mouhamed Keba Ndiaye ak magam ji nekk ci tukki léegi terewut jaar na fi muy Mouhamadou Matalib Ndiaye di nuyu le ministre Papa Babacar mbay ñu ngi tàggoo léegi mu téléphoné ne ma xam naa maa ngi ci benn séminaire waaye balaa midi ma ñëw muy responsable politique gu Grand Yoff des ministres chargés des relations avec les assemblées di nuyu itam maire dëkk bi Khalifa Babacar Sall ministre eh, di nuyu surtout Adja Aminata Mbengue Ndiaye moom it waxoon na ne dana def tout ak li muy xat yépp ba teew mu muy yónnee terewul ñoo ngi koy nuyu ah, di nuyu son excellence Babacar Carlos Mbaye secrétaire général de la présidence de la république biig ba may woo boobu minuit jot na di wax ne am na ci lu mu nekk mais dana am ku mu muy yónni waaye buggul daal ñu tudd ko di nuyu soxna si Adja Aïssatou Ndaw sama soxna soxna grand imam muy sénateur di président du nord mbooloo mi li di nuyu Cheikha Hadja Aminata Tanina moom mi nga xam ne mooy yaayu mbooloo mi dañ ko sosee ba tey mooy yaayu mbooloo mi di nuyu mboolem jigéen yu HLM Grand Yoff ñi am mbooloo nga xam ne ñoo ko taxawal walbati ku nekk di nuyu azatise yi mu jàngalekat yi nga xam ne ñoo fi teew ak ilimaan yi nga xam ne ñoo teew fii tey ah, li ko dalee ci sama sama doom Oustaz Idriss te mu wax léegi wax ju am solo ji ah, wax ji tekki ne fa wax ji jógee xama nga fa fa tabarakallah di nuyu mbooleem encadrement bi ku dalee ci Ousmane Sarr Moustapha Ndaw Jibril Bachirou Diassé suñu représentant bi jógee ba Passy di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne ñëw nañu fii oustaz Bachir Mendy waa benn oustaz la moom itam ci oustaz yi def daawa la te mu ñëw fi léegi waaw xalif Babacar Sall mooy meeru dëkk bi ki koy toogal mu ngi fi ñu ngi koy mayu bu nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy ay kilifa ñoom sama mag Samba Lawbe Fall ñom ñep gis na len ak kilifa yi kon di yeb ñima tuddi tudd litam gis na len ñom ñep di nuyu azati seyek iliman yek yeeg seyek ñom yeeg ñoom sëriñ Mamadou Sow ak gis na len ñu joge fu sori di nuyu surtout jeune yi nga xamne ñoy jeunesse bi andak man fele ci caaro yi nga xamne luma nek ñu nek ci ñi ñom pap Sylla ak ñaan ak ñi andak ñom ñom ñep gis naa leen ah, ak ñoomin ngom ak oustaz Amadou lii mi nga xamne mo len di arrestel bande yi te wax ne bu conférence bi pare rek né na bande yaangi fi bu ngeen soxla ngeen jël ko ci mom ak mu nek loolu lay wax di nuyu nak ñi nga xamne ñom lañu wo ñu ñew ñu waxtaan wi le ci góor ak jigéen ah waa ndoy Codé wu ma len ndax samay mbokk lañu samay xarit lañ te li nu boole mag ñom yalla la te kon fokk mu dëgër. استاذ شيخ تبو غراو استاذ ا نيغ لي نوي ويتام اك سا مbolo مكي غناو لولي ما لين دي وخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي لين خمال ني سونو تيمو تاي موي لا ترويزيم محمد عليه الصلاه والسلام كوكو نينكوي تودي عثمان ابن عفان waxtaanee alxalifa taalit muy Uthman ibnu Affan li muy tekki mooy waxtaanee ñi àndoon ak yonent bi li muy tekki mooy waxtaanee ñi jiitu woon ci lislaam li muy tekki mooy waxtaanee magu saxaaba yi li muy tekki mooy waxtaanee kibaarul ulama li muy tekki mooy waxtaanee muhaajiroon yu jëkk yi yi nga xam ne ñoo gàddaayoon ci yoonu yàlla li muy tekki mooy waxtaanee mujaahiduuna yi nga xam ne ñoo doon jihaar di joxe seen alal ak seen bakkan ci yàlla saxaaba yi mooy ñi nga xam ne ñii ma nar a waxtaanee kenn ci ñoom mooy ni nga xam ne def nañ ko sax ci waxtoom ndax ñu ngi ko def ci weeru jàmm yàlla kon waxtaanee ñii jaamu yàlla la saxaaba yi moy ñi ñu yàlla sant nañu roy ci ñom ñi yàlla wax ne diine ji day bu amé ñuko weddi itam tek na ko ci loxo yi ñoo xam ne duñ ko weddi mukk fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin kafirin ulaika alladina hadahum allah fa bihudahum iqtadi Lalu ayat 90 la mu ngi ci suratu al anam Waktu saaba yi nyai ñooy ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ci lislaam ñoo ci jiitu ñëpp nag ba yàlla taggaleen ci alquran ñoom saxaaba yooyu mooy les compagnons des prophètes yàlla ne ñoom ñooy nyai ci lislaam ñooy ña ca njëkk seen dëkk ak seen alal ànd ak yenente bi ak ña ko teertu woon ca madina ñu tudde leen lan saar ak ña ñëw seen gannaaw topp leen ñuy taabiuuna yi ak taabii taabiina yi alquran ne walsaabiquuna al awaluun min almuhaajirina wal ansaar walladina tabauhum bi ihsan radiallahu anhum wa radu an kooku aaya cent la mu ngi suratu tawba waxtaane saaba yi mooy ñooñu jege woon yàlla ñooñu jege yàlla ba yàlla ni ñii lañu jegel seen borom alquran nañu والسابقون السابقون أولئك diis آية 10 سورة الواقعة بقي صحابة يي ñoy ñi nga xam xamne yàlla moo leen tudd ci téréem bi taggaleen ne ñoom ñoy ñi nga xam ne su yonent bi daan wax dañuy dégg wax ja ba dégg ko topp la ci gën rafet mooy ñi nga xam ne ñooy jub ñooy ñi am xel ba yàlla ne nañ leen topp nañ leen roy alquran fa bashir ibadi alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana ulaika alladina hadahum allah wa ulaika hum ulul albab aya 18 la suratu zumar saxaaba yi ñooy ñi yàlla gërëm ñi gërëm yàlla ci seen bopp ndax ñoom ñoo jaayante ak yonent bi ci war ko digg te topp la muy wax lan lañ jaayante yonent bi saxaaba yi ñuy waxtaanee ñoo jaayante yonent bi ci jaay seen bakkan ak seen alal ba dee loolu moo tax yàlla gërëm leen alquran nañu yàlla gërëm na jullit ñooñu ndax ñoo jaayante yonent bi ci suuf garab googa ca Hudaybiya Hudaybiya vingt-deux kilomètres la sore Makka diggante mook Jidda ñu ne yàlla xam na ñu nekkoon la nekkoon ci xolu ñooñu doon jaayante ñoom saaba yooyu ba yàlla wàccee ci ñoom ak dalam moo tax yàlla fay leen ak ubbee ñu jóge fa dugguñ Makka waaye ñu ubbi leen Xaybar loolu moom duma ko nettali maa ngi koy bàyyi ak ci gàmm gi mu nar def ci fan yi خيبر من دو ما شاء عقبهم تي وهي الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا آية جزء الله من سورة الفتح مكي صحابي نيوي قمني يالا جلنا ما تك سيني يخو ndax ñu jayan tekmo ba yalla naan ñoo ñu jaayanteeg man de loxol yalla mo ngi ci seen kaw inna yubayunaka inna ma yubayuna allah allah fawqa aydihim mbokk yi fi alquran tudal na yalla ay yoxo yoxo ajori ñoko ñoo ko xam mooy loxo yoxo lañuy wax ñom yàlla wutal nañ ko fii yoxo muy mboolo am na fu ñu utal yàlla ñaari loxo mooy biñ ne dafa nay mu wane ne ñaari loxo la am day joxe day jor ak càmm waaye am na fu ñu ko tuddal benn loxo jàng nañ bal yadaahu mabsuusatan foofu ñaari yoxo la jàng nañ yadullahi fawqa aydihim foofu benn loxo la waaye أمنا في كوت الأيخ والسماء بنيناها بأيد إنا لمسعون وعلى كل مفسروني دن يكون يد الله معنى قوته أو قدرته كون بن لخو ليالا بوكو تكني سوني لخو واي ماي كاتنم اك من منم اي جي ديس لمن كي سورة الفتح بقي صحابي ملتو دلني bokk na ci suñu waa ji tey muy al imam wala al xalifa sayidina Othman ibnu Affan sayidina Othman bu ñu tuddee ay melokaanam tudd ay jikkoom ak i jëfam ma nga nañu melokaanu kibaaru saxaaba ndax ñoo bokkoon nañu mel radiyallahu anhum jamian mbokk yi ñu bokk yàlla bu fekkee yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la ñuy tuddal xissa ak ñettali yonent ko jiitu woon loolu jëriñ ko dëgëral gëm yàllaam ci wooteem kon sikka nekk ci ne ñun ñii ak ni nu ñàkkee solo ci seen kanam bu ñu tuddalee dundu saxaaba yi daal ñu mag ñoo ñu àndoon ak yonent bi dundoo ak moom muy wax ñuy dégg muy jëf ñuy gis di ko topp sikka nekk ci ne loolu dana ñuy jariñ kon loolu la ñuy jëlee ci nettali mbiri saaba bi lépp di muy Usmaan gis nga yonent bi yàlla def ne ko yow sax day maa ngi lay nettali la solo yonent ya la jiitu woon ndax loolu daan ci jëlee lu ñuy dalalee lu ñuy saxalee sa xol dëgëral ko ci sa daawa wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli ma nusabitu bihi fuaadak aya 120 suratu Hud mbokk yi nu mbokk yàlla واخنا لغي صحابه واخكو اي يون خمنا لمي تيكي موي كو اندك ينتبي ولا لي كومبانيون دي بروفيت واي ورنا لكو فيريل تفسيرا بيانيا ولا اصوليا صحابه موي لي كومبانيون دي بروفيت ديوت نك اصول تيولوجي نان لا نيو فيري صحابه ني فيري كو بري مو خمني خينا كي ديغلو دي عالم ولا دي جانكات من نتي جيلي jóge fa am position xam dëgg-dëgg saaba usuliyan damay wax ne saaba mooy ñi gën ci mbindee fi yàlla yi gannaaw yonent yi saxaaba yi mooy ñi nga xam ne du dagan kenn tudd leen lu mooy ci gën jaar jaarafeti tuddin yonent ndax yonent bi moo ne bu leen ŋaññe sama saaba yi giñ naa ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan a ngi ci loxoom bu fekkoon kenn ci yéen am na ci alal lu toll ni montagne jabalu uxut mu joxe ko ngir yàlla it du jot fukkeeli fukkeelu li nga xam ne moom la sama saaba yi foofu lañ toll ci yàlla nii la ko waxee laa tusabbu ashaabi fa walladi nafsi bi yadi law anna ahadakum anfaqa mila uhudin dahaban മാ അദ്രക മദ അഹദിഹിം വലാ നിസ്ഫൈഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹബത്തൈനെ yàlla tànn na sama saxaaba yi ci mbindeef yi lu ma yonente yi rek saxaaba yi ñoo gën ci mbindeef yi mu ne ñoom ñu inna allah ixtaara ashaabi alalamin siwa nabiina wal mursalin ñoom saxaaba yooyu mooy ñi nga xam ne nangu na ñoo topp ngéeram yonent bi ak yoonam ci digle lu baax tere lu bon loolu ñu nangu ba ne ca ba waxal ñu ko ba ñen ñu nekk ci loolu kat dañ yëg ne ci la ñu jaar bañ wax ne xeetu muhammad ñoo gën li tax ñu gën mooy dañoo nangoo digle lu baax tere lu bon te gëm yàlla te loolu ñu ngi ko jëlee ci sahaaba yi alquran kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkari wa tu'minuna billah waaye ba tey firilaguma saxaaba mooy lan mbokk yi nu bokk yàlla saxaaba ci firi mu gàtt mooy ñi nga xam ne gis nañu al Mustafa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ministre naag si sama rakk la fu ngeen ko jox rek dafa toog ñan ñoo di saxaaba yi saxaaba moy ñi nga xamne gis na yonent bi alayhi salatu wassalam te gëm ko kep ko xamne ci jamono gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam kooku te gëm ko lolu moy saxaaba saxaaba moy lan niñ koy définir kep ko xamne bok nga ak yonent bi jamono gis ko te gëm ko wala tegoo ko bët waye bok ngeen jamono te nga gëm ko koku sahaba lañ koy tuddee لالو موي تفسير اصولي العراقي بن عالم لنا راى النبي مسلما ذو صحبه وقيل ان طالت ولم تثبت وقيل من اقام عاما وغزا لم ودي صحابه تي ديفينير عراقي مونيكو تك يلنتي بي بب تفك گمغا كو رك كوكا امغا اك صحبه صحابه لن لي تودي صحابه يويو seen tolluwaay ci yàlla mooy lan mooy ñi nga xam ne génération yi ñu bokk moo gën ci génération yi yépp yeneen bi nee na maas gi gën mooy gi ma nekk man Muhammad ak maas ga ca topp ak maas ga ca topp mooy annabi wa sahaaba wa taabiun wa taabii taabiin nii la ko waxee xayrul quruni qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum mbokk yi nu bokk yàlla ulama yi ñoom ñëpp dëppoo nañ muy jumhur ñu jàng usul théologien yi ñoo xam luy jumhur mooy la la la majorité des savants islamiques ñooñu la ñuy tuddee jumhur jumhur ne nañu sahaaba yi ki ci gën ñu ci gën mooy ñeente yi les quatre xalifa jumhur d'accord nañ ci ne sahaaba yi itam ni ñu gënantee جبو نانتي تغللن ني مكو نرا واخي ابو بكر الصديق غنا يونتي بي موتي گن كوتي توپ عمر بن الخطاب كوتي توپ موي كني وقتانا تي ترازيم بن عثمان بن عفان كاتريم علي بن ابي طالب رضي الله عنه نيانتا يي دي خلفاء الاربع اصوليون ييب دبو نانتي ني ньо гэн чи мен дэфи гэнау ёнэн тэй gannaaw ga saaba yi topp ci ñeent ñooñu am na juróom benn ñi ci topp ñuy fukk fukki saaba yi yi yonent bi wax ne ñoom ñëpp ñu ngi aljanna yonent baa ngi koy wax bi muy dund ñoo ñuy dund dafa toog ci benn béréb di waxtaan ba yàgg am ku nuyoo ñu ne ko ubbi leen ñu muy Babacar mu ne Babacar ngi ci aljan ba yàgg am keneen ku ñu ne kan la ubbi leen ñu ubbi muy Omar mu ne Omar a ngi ci aljan ñëw bi ba yàgg keneen fëgg kan la ñu ne Ousmane mu ne Ousmane fil janna ñu toog ba yàgg keneen fëgg ñu ne kan la ñu ne Ali mu ne Ali fil janna muy ñeente yi ñu toog ba yàgg keneen kan la ñu ne Talhatu ibn Ubaydillah mooy seule personne bu taxaw ci kanam yonent bi kere xare Uhud fett yëpp dal ci kawam ba loxoom dafa sem mooy Talhatul Xayri بصيرنا المرتضي رفيقا واحد يوم فرت الرفقاء كنت تبقى زبيرين بن العوام كنت تبقى بن أبي وقاص كنت تبقى سعيد بن زيد كنت تبقى أبو عبيدة عامر بن الجراح ينتبين يعني ما أمين هذه الأمة ما يكن وولو تقادري كنت تبقى بن أبي وقاص كنت تبقى سعيد بن زيد سعيد بن زيد قرى عمر بن الخطاب ما يدين فاطمة بنت الخطاب كتب أبو عبيدة عامر بن الجراح كتب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فكي نوي العشرة المبشرون بالجنة من لسان رسول صلى الله عليه وسلم خمنا يعمنا يعني يودي وخلو معاوية تموي سنكم خليفة أم بقي معاوية نكباخ للصحابة لا يخنا صحاب توبنا مقبايم ca fatu makka loolu Idrissa koy nettali ji yéex na sax a tuub nag ca fatu makka waaye bokkoon na ci ñuy ñi nga xam ne ñooy bind wax yu gi Muawiya nag saxaaba la gaa waaye nag jëfiñ ko tëjwin ci al xulafa xulafa rachidun Muawiya bokk ci xulafa rachidun les quatre xalifa ñit ñi dañoo jub ñooñu ñeent la ñooñu euh, lañu melal lañu qualifier seen jikkoo ci rushdu am njub alxulafa arrachidun xam nga rachidun baat bi adjectif qualificatif la ci xulafa kon seen melokaan ak seen jikko mooy rushdu kon xulafa u rachidun ñeent usul théologien moom lañu ñu jumhur moom la jubo maawiya nag moo ñëw seen gannaaw kon buur la woon wala amir la woon allahu alam waaye bokk ci xulafa rashidun wala daal jumhurum lañ wax mbokk yi nu bokk yàlla xilaafa rashida xilaafa gu jub gannaaw yonent bi gu ñu wax ne jub na fanweeri at la yonent bi waxoon na ba mu demagul ne alxilaafatu min baadi salaasuuna sana xilaafa sama gannaaw gu jub fanweeri at la yéen ulama yu taarix yéen ñu topp te histoire gis ngeen ne xilaaf Babacar rombewut ñaari at gis ngeen xilaafu Omar ni mu toll ay juróom-ñaari at ak juróom-ñett gis ngeen xilaafa Ousmane fukki at ak nangam gis ngeen xilaafa Ali ibn Abi Talib moom it yàggun ñu naan la ñeent la wala manqué na ko kon boo jëlee les quatre xalifa سين خلافة لكم من كسنوري أك جرم بن نوير لا جرم بن نوير يو تلا حسن ابن علي نك خليفة ينتبه تكو سوف نانا ليلة ينتبه رحنان الخلافة رشيدة آه الخلافة من بعد ثلاثون سنة الله أعلم يعني الله في صحابي أو يو فيل نيو لين أو يو بجريتي الله نحن نك صحابي لكم بنيو نيوم نيوم نيوم leer ak yoonu yàlla wi ak diine ju sell ji bañ man ci jot ñoom buñ fi nekkaloon wala ñu noppi yoon wala jubuñ wala xamuñ kon diine du yegg si ba ci ñun ndax fekke ko léegi nag yal na yàlla dimbali ñu bee ñu mën a tudd li rafet ci saaba yile maa ngi ñaan yàlla it mu baal ma baal leen su fekkee ne tudd nañu benn saaba tudd ci moom lu yelloowul ak darajaam wala bu ñu wàccee kenn wàccuwaay boo xam ne moom gën na kawe loolu ñu ngi ñaan yàlla mu baal ñi loolu mbokk yi docteur Taw Seyni dafa wax benn wax docteur Taw Seyni nee na ci téeram bu ñuy tuddee al fitnatul kubra taxaa na kuy nettali histoire sahaba yi war nga jéem a toppatoo ba gis li nga xam ne moo di njub mi di dëgg gi nga wax ko rek mooy loolu nag na nga ko jéem loo kon nag ma itam danaa jéem nettali histoire bi def ci taxari alxaq wa sawaab lu ma man maanaa dama bëgg a wax ne ñooñee ñuy tuddoo chia ñuy partenaire de Ali duma leen jox dëgg waaye ñoo ñuy ñuy tuddee Ousmane nga xam ne teguñ Ousmane ci kawam kenn waxuma ne ñoo ñooñu laa jox dëgg man daal du ma chiiyi du ma Ousmane muslim laa rek boo xam ne damay nettali histoire ci ni ko seeni borom bindee mbokk yi daf maa yitteelu sax nag ci xissa bi di seet ndax waa chia ñoom ñoo marhaban di seet ndax waa chia ñoom ñoo juum wala utmaan yoona yi ñoo juum wala di jéem a seet ñoom li leen dal san la jógee di jéem a jox kenn dëgg lool duur li ma tax a jóg nag man daal kenn ci ñi xalaat laa kenn ci ñi bind laa mu bind ak samay référence yi nga xam ne maa ngi ko jëlee ci rijaalu taarix ànd ak sama imaanu billah gëm yàlla nag xamit ne saxaaba yi ñoom ñëpp ay ulama lañ atqiya saadatun wa kurama ñoom ñëpp boromi xam-xam lañ ñu ragal yàlla lañu ay sang lañu waaye ñu tedd la ñoom nag bokk na ci ñoom utmaani ibnu affan mbokk yi nu bokk yàlla fuqaaw yi dañuy wax naan bi an laa yuzkara ahadun min sahabati rasul illa bi ahsani dikrin wal imsaaku amma shajara baynahum wa annahum ahaqu nnaasi an yultamasa lahum ahsanu lmaxaarij ويدن بهم أحسن المذاهب كما يجب طاعتهم وطاعة أئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع سلف الصالح واقتفاء آثارهم فقاوي بن يوحني ورشة تد بني كومبانيا دي بروفيت بني صحابة لمي جنجارة في تدين منا ورنا نيو من جاب ويد لقي وانتسين دقنتي لولا أغنيتي لون دقنتي نتك نت war nañu mën a sàkkul saaba bu ne wutal ko génnuwaay ci problème bu mu am bu ne nañ ko ci wutal échappatoire bu mu génne war nañu mën a jot ci saaba yii ni ñoo gën a rafetam ngéer ndax ñu ngi bokk ci kilifa jullit yi war a topp ñu méngoo mbirum jullit yi te ñooñu ñooy salafu saalax ñi dawee ci aw yiw war na leen a topp citation lan mu ngi ci risala ibn abi sayid al mbokk yi nu bokk yàlla danañu jéem kem suñu kàttan nataalal leen maanaam portale leen portale boo xam ne daanaka boo ma dégloo day mel ni gis nga Ousmane maanaam portale benn góor ak julit sahaaba bu màgg ku mokkaloon alquranul karim ku jege woon yonent bi ci wàllu askan ndax moom ma ngi dajeeg yonent bi ci askan ci wàllu yaayam moom Ousmane la gën a jege yonent bi ndax Ousmane yaayam mu ngi tudd Arwa Arwa bint Kureysmi bintul Bayda bintu Abdul Muttalib Hashim kon yaayam Arwa doomu bàjjinu yonent bi la kon Ousmane jarbaat la ci yonent bi alayhi wasalaam léegi mbokk kan moo di suñ waaji Ousmane sayyidina Affan ci wàllu askan Euh, mën nga wax ne daal mooy xalifa Ousmane ibnu Affan ibnu Abil Aas ibnu Umayata ibnu Abdu Shams ibnu Abdul Manaaf ibnu Qusay comme Quraysh yi dëgg la kañ la juddu Ousmane ma ngi gane àddina six cent soixante-seize juróomi téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci juddu Jésus jamono jooju la Ousmane gane àddina maana gannaaw bu yenent bi gane adina bam am juróomi at la Usman door a judd kon loolu moy datu jiddo jikom ak métieram lu mu doon liggéey mbokk yi nuy bokk yàlla usman ci walu jikko ak ci walu liggéeyam activitéem usman borom jikko yu gën la woon Usman borom molokaan wu rafet la woon usman baax na gu ko xam rek bëgg nga ko Ousmane ku bari woon kersa la ba yonent bi da ko daan ruus ñu ne ko loo ko yerasee xanaa li muy sa goro la mu ne déedéet ndax du yeres koo xam ne malaaka yi sax dañ koy yeres yonent bi dafa toog séram daal di uññee ko ba óomam di génn Babacar nuyoo mu bàyyi ko noonu mu dugg toog Omar nuyoo waaw yow da ngay yeres Ousmane mu ne du ma yeres koo xam ne malaaka yi sax dañ koy yeres kon loolu moo doon jikko Ousmane ku bari kersa la wante Ousmane ku fegu la maanaam ku jub ku fegu la ci daraja bu kawe nag la fegoon moom Ousmane lan moo di métier am activité am commerçant la woon dafa daan jaay di jënd lu mu doon jaay ay ay ay tiisi la doon jaay piis la doon jaay comme maître am Babacar mi ko jàngal commerce Babacar it piis la doon jaay loolu moo doon njële ko Ousmane na Affan ak Aboubacar ibn Sadiq histoire loolu la ñuy nettali ci wàllu duggam ci lislaam bokk na ci ñi njëkk a dugg ci diine ji ku a dugg ci la mu ngi ko jaarale nag ci loxo yi Aboubacar ibn ndax moo doon maître am di xaritam ñu daan ànd Babacar ñetti at la ko mage yonent bi magee ko juróomi at naka noona ku daan toqoog Babacar la nee naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku gërëmoon Utmaan la kon mbokk yi nu bokk yàlla ah alxalifa Utmaan mbokk yi nu jëmmale ji day waar ji yenent bi gërëmoon la ba yenent bi dencaloo na ko ñaari doomam yuy jigéen fekkante wuñ nag daf koy njëkk may roqiyatu roqiyatu mu ngi faatu ke roqare badar loolaa tax Ousmane demut badar ba mu dee mu wuutal fa rakk ji Umu Kaltuum kooku dee ci loxoom yeneen ci wax waxam ju rëy jë ne wallaay bu ma amoon yeneen doomi jigéen ñuy dee ñëpp Ousmane laa koy may kon gërëm na ko aw kama qaal law kaana li gayriha la zawajtuha bi Ousmane aw kama qaal Ousmane bokk na ci ñi nga xam ne gàddaayoon nañu dem Habasha yëf Afrique saaba yi njëkk a gàddaay yóbbu seen diine dem Habasha fekki Najashi Ousmane ci la bokkoon yóbbaale woon na soxnaam sa Ruqiyatu bintu Rasul jamono ji nga xam ne yéefar yi ñu ngi lor jullit ñi di leen fitnaal ci jamono jooju la Ousmane bokk ak ñi gàddaay ñu dem Xabash Ousmane gëm yàlla bu dëgër la amoon tax na ba mu duggee ci diine nijaayam Abul Aas da ko woo ba mu ñëw mu yeewu ko te génn nga duma la yeewi mukk fee génnoo ci lislaam noonu la ko nijaayam Abul Aas def yedd ko yeewu ko sonal ko naka noonu yaayam ji ko jur itam muy arwa moom it noonu la contraire Ousmane bi mu duggee ci diine waaye ba ñu koy yeewee lu yàgg Ousmane jikkoom soppeeku changé dara ci gëm yàlla am ah najaay ji ne kii mënulu ma ko dara yeewee ko mu dem kon ku dëgër gëm yàlla la najaayam ak yaayam yëpp def nañ li nekk Ousmane ne moom yeneen bi rek lay àndal Seydina Ousmane radiyallahu an ku amoonam xel waaye nitug jàmm la violence waxu ci dara nitug jàmm la woon fekkee na mbooleem ba xare bu yonent bi des Ousmane fekkee na ko ba mu des Badarul Kubra Badar rek la Ousmane wutee te xam ngeen lu taxoon demul Badar Roqiyatu moo feebaroon soxnaam mu nekk di ko yëkkati ak tëral ak di ko jox lekk di ko jox naan dëgg la sax bu deewutoon sax ñu ne toppale la waaye farruqiyatu mu ngi faatu ci xare badar boobu loolu moo taxoon Ousmane demut xalifa Ousmane xelam mu rëy taxoon na moo njëkk nekk ambassadeur yonent bi ci Makka moom la yonent bi njëkk yebal ne demal Makka nekk fa sama ambassadeur nga wax ak wax ma waxal ak waxal ma ak ñoom ndax xelam mu rëy waaye ndax daraja ji mu am wante ndax njubam ndax sagom ak it bokk gam am ak ñu nekk quraysh ci waxtu waw ndax ma ngi bokk ci banu umayyata te abu sufyan buri mak ci xeet waw la bokk lolu motax usman bu mu demee mak dafa ne quraysh man day xex siwuma man day ñewuma lu moy pour jàmm yenente bi am yebal mu ne dafa ñewon pour def ci umra mu ngi fi ci hudaybiyah neena dafa bëggoon ngeen may ko ci jàmm rek mu ñëw wër kaaba gi dem safaak marwa umraam jeex xeexut xuloowut jàmm ko yëndi usman dem di négocier loola sotteegut benn waaye dal di indi xibaar ne usman kat Quraysh rey nañ ko rey nañ ko ca makk yonent bi ne dëkk banu umayata ñay buri makk mu bokk ak ñoom bàyyi Usman di sama ambassadeur ma yebal ko muy négocier Usman ñu ne ray nañ ko ci Mak bi nekkon dama umra si won waye armali nañ ko sanni guerre taxawna dana dugg Mak ñu ne ko amulooy ngannaay mu ne yalla lay ngannaayo Usman ma yebal ko ñu ray ko ma ñibbi damay dugg Mak ak doole ak xex kon ubi Mak jot dal di talal loxo ndey joram ne sama loxo ngi jël loxo càmmoñam ne loxolu Utmaan a ngi daal di ne Usmaan jaayante nag man ci yàlla ba kanam des na ci daal di ne saxaaba yi kuy jaayante yépp daal di jóg ku ne ñëw jël loxoom teg ci loxol yonent bi ne jaayante naa du ma dee du ma daw lu may ma dee du ma dellu gannaaw loolu la ñuy tuddee ci taarix bayatu ridwaan muy jaayante bi nga xam ne yàlla daf caa gërëm saxaaba ya Utmaan ci la bokkon ndeke kenn réew gannaaw ga mu delu ci ba mu delu ci ci la Quraysh doora nangu nak jammo ndax négociation Ousmane bi aboutir na ci dara ñu ñew nak yebal Soyl ibn Amrin Soyl ibn Amrin dal di ñew yonent bi dal di ne ah Quraysh bëgg nañ jamm ndax yebal nañ Suhaylu Suhaylu yonent bi ku bëggoon harsan la lolu motax bi juddoo ali ne tudde naa ko xarb xarb mooy guerre xeex mu ne déedéet kenn du tudde loolu sa doom waaye ci loolu la mujj rek tuddee ko asan mu ndaw loolu taxoon wax ko su suhaylu sahlu mooy tekki ak jàppandi suhaylu ibnu amrin ñu yebal ko yent bi ne kon Quraysh bëgg nañ jàmm moo tax ñu yebal suhaylu ibnu amrin ba mu ñëwee nuyoo nuyoo toog ne ko léegi Quraysh ñoo ma yebal ni nga yebale yonent bi ne bu ko kenn gaarlu ak dara ndax yebal naa Utmaan dem na dellu si nag jàmm moom it bu ko kenn gaarlu baleen ambassadeur la mu def liñ ko yebal sooy ne dañoo bëgg a yow ci feeg doo xeex ak xeex ak yow danoo bëgg a jugee jubóog yow tey doo dugg màkk dangay ñibbi ak say xarmal bu dee ne ñu bàyyi la dëkk bi nga ñëw def sa umra foofu nag moo Ali ne ko bindal moo doon secrétaire am léeg-léeg ne ko bindal Ali bind ne lii la juboo Muhammad rasulullah ak Quraysh sooy ne ko faral rasulullah ah lu tax ma ko far mu ne suñ gëmoon ne mooy rasulullah du naat seeg moom fii defal li arab xam Muhammad ibnu Abdullah Suhaylu ibnu Amrin Muhammad représenté ñi Suhayl ibnu Amrin représenté Quraysh loolu rek ngay bind yonent bi ne Alioune defal loolu Alioune ne man bind rasulullah di ko far ndax ab yéefar loolu Alioune du ko def keneen a koy far yonent bi illettré la mënul liir mënul bind loolu ci kéemaanam yi la te ñi bind ki yi liir yépp nag mu ne ko won fi mu toll mu ne ko lii fii la toll yonent bi faral ko boppam ñu bind ne lii la juboo Muhammad ibni Abdallah ak Suhaylu ay ibnu amrin ci turu Quraysh ci nangam ak ci nangam loolu mooy seen hudna ba lii Othman rôle bu toll noonu la ca g Othman ibn Affan ku tabe la woon ku mën a joxe la loxoom lu gudd la woon ci dimbale gis nga am na xare bu tudd jaysul usrati jaysul usra ba ñuy dem yoruñu dara keroog Utmaan moo jël juróom ñaari gëlëm sëf leen ak bele ku ci nekk benn jaam omat ko mu jël xaalis bu bari boole ca jox ko yonent bi ne nañ ko waajalee xare bi su mi ay yérem boole ci ba dese benn abbaaya bu ndaw keroog yonent bi wax na wax ju rëy daf ne wallahi ma darra Utmaan ma faala baadal yow Ousmane dara mënatu koo lor lu mu defa ci gannaaw tey keroog lii la yéen ci amoon na benn teen bi naan biiru Rome ku ngay fay ku rek dana am loo joxe am ci jullit ñi néew doole ñoo xam ne mënuñoo am luñ joxe Ousmane moo dindi xaalisam jënd teen ba borom teen ba demu yoonam mu ne sama goj ak goju waa dëkk bi yépp nag ñoo ci yem kenn du fay fayati عثمان بن عفان كوني ولولا ابو بكر الصديق ومن كي خليفه ولو انك الله لجيل نكو لجيو ري عثمان بن عفان كو كدان ديمبلي عثمان كو جابلي عمر بن الخطاب بمن كي خليفه لا كودان ديسوك موم لا يتم عثمان نك انا كاج لا نيك خليفه جيس نك رك بانيو جامي عمر بن الخطاب تي جوليك فجر benn caddoo benn tubeen bu mokkut buñ naan abo lulu atta Omar di defar sàppe yi naan sàppe leen sàppe leen ndeke ko mere woon dafa amoon problème Omar ñëw ne ko nekkoo ci dëgg waa ji di xaar ba Omar romb ko rek mu jam ko gobar ah keroog suba su doy waar la Omar ibnul Xataab daanu ñu daal di ko yëkkati teg deret ji génn mbaq gi bënn si bëli si commencé génn omar ne mottali leen julli yàlla gi wala ne abdourahman ibnu awf mu jiitee ngeen mottali julli gi ñu julli waaye keroog am na ñoo xam ne xamuñ li ñuy julli waaja radiallahu anhu abdullah ibnu omar ibnu alxataab li muy nekk nekk ab sëriñ keroog muy tawu omar moom xam naa xaw ma julli naam déet waaye jot naa jam fukki ñu te juróom benn di ki jam bayam kan la fuk ak juroom ben dara abdou ibn omar jam na len arab foko fek mu ngi takk pak paaka boobu ñu nan qaddasi lu ñak ñak nganaay mu ngi ci poojam mu gene pakam rek kum yaakar ne ma la mu jam ku tepp mu jam ku yëngu mu jam ba jam na fuk fukki nit ak juróom ajam yooyu joge won iran ñoom it mu rey sendir. danañ ñew ci seen bir ba wax la nan lañ tuddoon mu ray ci ñu bare bari mom abdullah ibn omar ibn alxataab suba suñu jamee omar ibn alxataab keroog ci bés boobu la sahaaba yi dajee jël juróom-benni sahaaba ne nañu dajee diisoo tànn kuy wutu omar ibn alxataab keroog la ñu juboo ci tànn Ousmane ibn Affan keroog la ñu jaayanteeg moom mu nekk xalifa jullit ñi nekk troisième xalifa nit ñi nag nañ meloon ak Babacar nañ meloon ak Omar tàmbali nañ ko mel ak Ousmane ñeenti at waaye wéyut danañu ñëw ci ba mu wéyut lu ñu def incha allah Ousmane lan la defal jëlit ñi Ousmane lan la liggéey ci xilaafa gi ah li Ousmane liggéey bari na ma ne su ko lim ci benn jëttaay waaye dana wax ne Ousmane ba mu nekkee xalifa ci la folli Saadi ibnu Abi Waqaas ma nekkoon gouverneur ca Kuufa te loolu dénkaane la boo Omar ibnu Xattaab waxoon nañ ko fa jële balaa moo dee moom Omar Ousmane ba mu nekkee xalifa ci la fal ca palaasu kooka Walid ibnu Uqbata ibnu Abi Muitin ibnu Abi Amr ibnu Umayata ibnu Abdu Shams ñaara ngoog Ousmane ba mu nekkee khalifa ci la wacce utbata ibnu farqat ma nga nekkon ci azerbaijan ci rew Iraaya usman bam mu khalifa gënaaw juroom yat ci la folli Walid ndax Walid mo nekkon gouverneur ba ñu tumal ko ne dafa naan sangara ay sédé ñew sédé lola ca kofa ali ibn abi talib joxe fatwa ne nañ ko caw ñu caw ko ñeen fukki yar ba pare folli ko foofu lañ falaat saïd ibn al aas al amawi sidna ousman ibn affan moo relevé abu musa al ashari gu ma doon gouverneur yi basra dal di fa tegaat abdullah ibnu amir ibnu kuraysi ibnu rabiata ibnu abdu shams al amawi xam nga yoon yaa ngi bëgg bari nag foofu nag bari na ñu commencé génn ñu xalifa bi anar ak fawda tàmbali na loola mu ngi nekkoon 29 neuvième année ca gadda yonent bi waaye at ma ko jiitu muy ci la yebal Muawiya ibn Abi Sufyan شندي قال عثمان كيلو بقبرص ما فينا سيبر بابا لقيخ سيبر بو بيكو أكبري تركيا دوغل في الإسلام بابا عندنا كي أكما بو صحابي عثمان بن عفان مام مو بي تبرستان كم في بلون مو سعيد بن العاص مو عندك مغو صحابي عبد الله بن عمر حسن حسين بن علي عبد الله بن عباس ابن العاص وعبد الله بن الزبير حسيف اليماني لالو fanweer la woon ca gàddaay ga Ousmane Ibn Affan moo ubbi turc réewi turc yëpp Ousmane dafa duggal lislaam muy ubbi ñetteel ubbi woon nañ ko jamonoy Omar ubbi woon na ko léegi bi Saïd la fa yebaloon gouverneur am mu ànd ak Abdourahman ibn foofu nag am na problème historiens yi ne nañu ba ñu demee xare ba dafa xaaj ñaari xaaj bii jaar wàllu albani dajeeg Suleymaan ibn Rabiat al Bahili benn ba jaar ci wàllu jilaan ñu teqali ko Ousmane dal di ni yeneen soldaar yu dimbale ji ñooña jiital ci ñoom Souleymane ibnu Rabiata booba la Ousmane nommé gouverneur ci ku naan Xusayfat al Yamani muy ku am histoire waaye ku amu fit Xusayfat al Yamani keroog xereb xàndax ba jullit ñi gasee pax mi mu wër leen ba yéefar yee ñu leen ëpp doole ak mbooloo mënuñoo yéeg si keroog ba yonent bi ne kan moo a kan moo ñemee yéeg tëb pax mi fekk yéefar ya fa ñu nekk nga déglul ma li ñuy wax ak fuñ toll Xusayfa ne man maa ko ñeme waaye nag sedd na ñaanal ci sedd bi yonent bi ne yàlla na nga segal Xusayfa sedd bi nee na dafa mel ni dañ taal fourne ci kanamam ak ci gannaawam liwatul mu tëb pax ma fekk yéefar ya ba mu demee ba dugg ci Quraysh mu dégg Abu a ngi naan Muhammad def na loo xam ne arab mosu koo xam boo demee ajam yi làkkat yi iranien yi ñoo ko ko jàngal pax mi mu warale dëkk bi ba sa fas munu koo tëb ku ci dugg doo mën a génn daf noo ragal waaye man daal Abu Sufyaan li may wax su ma sottalee damay dal di ñibbi mag léegi nag ñun Quraysh nan jàppale jàppalante bu nu kenn rax Xusayfa tey ci loxol Abu Sufyaan ne ko jàpp naa la bu nu kenn rax daal di jàpp kale jàpp fële mu daal di wax ne su ma yàggalee sama wax ji man damay ñibbi mu yàgg rek daal di war gëlëmam dem Xusayfa te jàllaat pax mi ñëw ne ko daw nañ kon ku dëgër fit la waaye ku gëm yonent bi la kii lañ defoon gouverneur ca Kufa Sham mooy Syrie ak la ko wër Habib ibn Muslamata lañ fa tegoon ñu ne na dimbalanteeg Suleymaan ibn Rabiata Habib ibn Muslamata fekk moo doon kilifa ak Sham mu ne ñoom duñ topp Suleymaan al Amawi duñ ko topp mukk waa Sham ne Suleymaan nii dañ koy dóor caw ko génne ko bu nekk gënal suñ kaw waa Kuufa ne su ngeen dóoree suñu Suleymaan moomu mu dóoral leen Habib mi def fii moom itam kilifa ci Kuufa wala rayante dina bari suñ diggante kon loolu problème premier problème ak wuute bu dox diggante waa Kuufa muy Irak ak waa Sham muy Syrie foofu la tàmbale ñii pro Ousmane lañ ñii pro Ali lañ problème tàmbali na juddu ci seen diggante fitna commencé na xeeñ di yëngatu Ousmane Ibn Affan ci jamono law bi Égypte dugal fa diine ndax xam nga ne ay lakkata fa nekkoon ay copte ñoo fa nekkoon ba léegi ñu nga fa yore seen église moo fa dugal diine jël ku naan Amru ibn al-As al-Amawi yi def ko fa gouverneur ak Abdullahi ibnu Nafi ibnu Abdul ak abdullah ibn nafi ibn al haris ni ñooy ñi nga xamne ñaan rek ibn al aas ba ñu ubbi misra muy égypte ñi nak abdullah ibn nafi ibn abdu qais ak abdullah ibn nafi ibn al haris ñom ñoo joge égypte ñëw ba tunisie ñëw ba maroc yu indi diine ji ba ci bunta afrique bu ñur gi ñu bayiko fi fofu la jaaré jaar Mauritanie bi ci fi ci ñun ñi ñoo def lool wante suñu tem tey dugul lislaam ci Sénégal ne danaa la waxal nu mu def ba ñëw fekk fu mu jaaroon suñu tem tey Ousmane la mbokk yi dafa yaatu am Afrique gu weex ak Afrique gu tax na ba ñii muy Abdoulaye ibnu Nafi ibnu Abdul Qays ak Abdoulaye ibnu Nafi ibnu al Xaaris waa kër Abdou Shams yi ak waa babakar ñang sa samam maam ci ñooñu la jëgé ñoy ñoo jëgé won fofu dal di ñew jëlof ba ñu ñibé ñu bayyi fa kenn muy Rida Sani Rida ci lañ ko mayé jigen ji ñaan Jayle Niass eh, da da bala muy am dom mu ëmb bala am dom mu delluwaat Tunisie ñibbi ci naar ya Jayle moomu moo di seen mam mo jur ñeseen yi sëriñu ñeseen yëpp ay arab lañ ñi ñoo leen seeni ndax ñoo doon fatu ba ñew Afrique jaar foofu ñëw ba fii dellul ci risalatu docteur Jibril Malick Guèye mi da nga ci am ay détails yu gën a yaatu mbokki yi comme Afrique dafa yaatu tax na ba ñoom mënuñoo egg si ci lépp waaye nag am na luñ ci dugal mbokk yi mën naa la wax ne bokk na ci li Ousmane liggéey ci jamono yonent bi sax Ousmane liggéey na lu bari wax naa la ne jamono yonent bi Othman mooy ki nga xam ne moo waajal jaysul usrati Ousmane mo waral jullit ñëpp ku ne mu jox la gëlëm wala fas nga war Ousmane jar jullit junne dinar jox ko yonent bi ba yonent bi ñaanal ko ñaanam googu ñu dut fàttee daldi ko dël aljanna loolu Ousmane moo ko def Ousmane balaa fitnatul kubra ñëw ak li ko sabab dañ la wax ne Ousmane saaba la bu mag ñu njëkk ci lislaam la bokk jëf ji yiw ju bari la def Ousmane doy na rek ñu wax la ne alquran mii muy jàng tey Ousmane a ko bind kenn bind ko woon mii Ousmane a ko bind commission ba ko doon bind Ousmane moo ko doon présider te yonent bi eh, eh, Babacar ne su ngeen wutee ci benn baat laaj leen ko ndax mooy Qurayshi ci làkku làkku xeetam la alquran wàcc kon Ousmane moo jiite commission bi bind alquran bañ jot ci ñun ñi ci xilaafa Aboubacar Sadiq ci proposition Omar ibn al-Khattab Ousmane gaday na ñaari yoon gaday na dem Habasha and ak ñe gaday gaday na dem Medina dabu yenen tibbi alayhi salaatu wasalaam waye and ak lool yépp nak amna lu docteur al fitnatul kubra gar na Ousmane ci aw yoonam mbokk yi nu bokk yalla le troisième khalifa des prophètes alayhi serigne bu mat gor gu mat gi कुमकलाल कुरा गोरगुटे गी गोर योन अली सलाम जरदात गंज मिडे दी वाजी कमने अल कुरान दिन करन जांगे जांगे नि बरी मोनंगु कामिल ये पलकले अन जिल दिन कामिल ने बी रेक न को निप दी जांगे रो उस्मान को देस नि नंग अल खत उस्मान उस्मान नि जायन तने ने मोम को खलीफा दफा नेक वक्त बाहुत बतर ताउजन नेना fekk na nit ñi sax gërëmoon nañu Ousmane nangu woon nañ mu nekk xalifa usmaan nag ku baax la woon ku tabe la ku daan maye la ñépp mu leen di may di leen dimbale rawaate na Quraysh gi mu bokk tax na ba juróom benni at yu jëkk yi ci xilaafa Ousmane jàmm rek la daana am sax ñu ko contre waaye dawul sori ji waaye ba Ousmane duggee nag deuxième tranche xilaafaam ah ci la jafe-jafe yi tàmbali ci la problème yi dëgmal si ndax boobu fekk na nit ñi ñu ngi jege fitna lool booba jullit ñi gërëmoon nañ xilaafa Othman juróom benn at kenn waxut dara waaye ñeenti at yu mujj ci xilaafaam yépp ay pexe ci la Ousmane dund ñu koy fexeel rek Ousmane gannaaw fukki at ci xilaafaam ah léegi nag xatal nañ ko xatal nañ ko ay opposant yu bari dal di feeñ te kat li ci gën a metti ci ay bokkam Quraysh ci ay arab ay magu sahaba ñoo jóg opposé Ousmane gën jaatari opposition la ñu dëgër lañu woon boobu danaa ci tudd ah, li indi fitna bee tax ñiy opposé Ousmane dana am yu ci tudd dafa am ñu ne Ousmane keroog xare Badar xam nga dafa metti woon ba alquran ne sahaaba yi dañoo daw yastosciduuna wala tuluuna ala ahadin wa rasulu yadcuukum am na nag ci sahaaba yi ñu ñu saxoon dawuñu ku mel ni aboubacar ibn sadiq dawul ku mel ni ali ibn abi talib dawul ñenn ñi shahid ku mel ni talhatu alxayri dawul waaye am nañu dawoon ca xare ba ànd ak ñi daw omar ibn alxataab ci la bokkoon ousmane ibn affan ci ñi dawoon la bokk moo tax liñ ko njëkk sikkee dañ ne ko yow da ngaa dawoon ca xareb uxud wante xareb uxud ña ca dawoon alquran dafa wàcc ne yàlla baal na leen alladina tawallaw minkum yowma altaqa aljamaani innama stazallahum sheytan bi baadi ma kasabu wa laqad afa allahu anhum inna allaha gafurun rahim alim inna allaha gafurun halim kon loolu wartoon nekk gàkk buñ ko sikkee waaye ñoom moom lañ jël premier argument ñaareel ba ñu ne Ousmane keroog ba ñu reyee Omar ibn al-Khattab ñu fal Ousmane def ko xalifa Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab rey na ñu bari moo rey Hurmuzan moo rey Jufaynata doomi Abu Luluta ak ñëpp ñu mu sikk ne laal nañ ci rey Omar rek Abdullah ibn Omar doom ji mooy leen rey léegi jullit ñi dajee ñoom ñëpp dal di atte ne na Ousmane jàpp Abdullah ibn Omar fayu ci moom maanaa rey ko Ousmane defut loolu defut loolu dal di ne xëy na rey gi njumte la ndax ku toog ñu rey sa bàyyi jam ko mu ne lëj ca dee doo ànd teg sa xel xëy na loolu moo tax mu rey ñi mu rey kon nag man Ousmane li may atte mooy dañ ko dañuy def dañuy déyee ñi mu rey ñëpp dindi alali boppam moom Ousmane déye ko lii bokk na ci liñ ko sikkee lu tax fayu ñetteel ba ci fitna bi ñu teg Ousmane Omar ibn al-Khattab dafa ne woon kibaaru saxaaba kenn du tukki génn Xijaaz ndax bu ngeen tukkee tasaaroo ci réew yi léegi tey duma am ñu may diisool yéen ñi àndoon ak yonent bi léegi tey duma am ñu may jàppale léegi tey appel bi ñuy def jëmee ci lislaam duma am ñu ma jàppale magi saaba yépp Omar da leen a ayoon tukki ñëpp mu nangu seen passeport kenn du dem Ousmane bu mu ñëwee jox leen liberté ñaa dem Syrie ñaa dem Afrique am na koo xam ne ñu ngi ko sul ci Tunisie fa la dee yëpp ñu tasaaroo liberté boobu ñu ne lu tax Ousmane def ko loolu ci liñ ko sikkee la bokk ñeenteel ba moo di Shura muy juróom benn yiñ aljanna nga xam ne ñoo motali fukk ñoom ñoo diisoo woon ba ne Ousmane la ñuy fal xalifa ñoom it demoon nañ ba daal xawatuñoo jubóog ni Ousmane di doxale mooy Ali ibn Abi Talib Talhat ibn Ubaydillah Zubayr ibn al-Awam Saad ibn Abi Waqas juróom ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo tànnoon Ousmane def ko xalifa ñu bokk ci ñi yàlla yonent bégaloon ci aljanna waaye ñoom nag nañu xawoon a opposé Ousmane de nekkutoon lu garaaw nekkutoon lu garaaw ndax ba Ousmane nekk ci danger Alioune dafa yebal ñaari doom ñu ñëw di ko garder kon ñoom li ñu opposé Ousmane ba sit la woon quelque xalaat la woon juróomeel bi ci nañ tumal Ousmane mooy Abu Zarin al Ghifari benn suufi la daa amutoon jabar amul doom dafa dëkke woon jaamu yàlla rek ne ci jàkk ji bu yent bi sottalee woo ko mu lekk Abu Zarin nee nañu moom dafa am problème benn yahud muy Kaabul Ahbar yahud bu doyoon waar la ba ma amee problème Abu Zarin dal di ne Kaab yëpp nal yahud yi yow doomu yahud bi ah ba amee nag kooku merab kalaame ci Ousmane Ousmane dal di digal Abu Zarin mu génn Madina maanaam mu gàddaay lii bokk na ci liñ ko contré lu tax mu génne Abu Zarin naam كبار المعارضين نيكو اوبوزي ابو درين الغفاري ما تامو تي دغر ات عبد الله ابن مسعود دا دا فجل كامل ييب لكلين بام ديس كامل بيم بند مام عثمان كامل ابن مسعود من نكو لك تي توب بي لول بوك ني تي لي لين جاتالي اكن عمار ابن ياسر ñoy ñi mara tuddal ñoy kibarul muarada mag ñi ko opposé won ci sahaba yi abou darin al ghifari abdullah ibn mas'ud amar ibnu yasir ñii la abu musa al ashari bokk na ci juróom benn bi li ousmane def mooy relevé ne abu musa al ashari ca basra mu fa nekkoon gouverneur dal di fa fal abdullah ibnu amir al amawi juróom-ñaareel ba fali na walid ibnu uqbata ca adrbijaan fal fa saïd ibnu al aas al amawi kii walid omar waxoon nañ ko fali juróom-ñetteel ba mooy jubawuñ ak Ousmane ci politique sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbih mbokk yi li ñuy ñaan rek mooy fuqaaw yeeg ñu ñuy tuddee ñu xaw jéggi dayoog wala ñu tuddee seen bopp jaamu yàllaak wallahi intégrer ak nangam nangam ak ñepp nañu baal xam ne muxtaaru tisbaar quatre heures la yem kon nak bu ñu lëjal ak julli nañ ne tek ba tem bi jeex muxtaar ma ngi jeex 4 heures ku jang fiq xam nga waxuma daruri nak aguma ci daruri ba ta jënt saye tisbaar dora wi wéy bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حضرة الإمام الأكبر نجيل نويل إمام دكار الحاج مالك السلا صامك صامك خريط بريزيدان إمام يك علماء يك دينوي سامك سون إكسلانس حاج مصطفى أحمد سيسي xalifa de Pire conseiller spécial du chef de l'État di ko jaarale ci sama doom yi mu yebal ñu di ay doomam ah, di nuyu ah, Serigne Jugaare Cissé mu ñu ormal mii nga xam ne yàlla rek ko ñor di nuyu imaamu koñ bi muy imaam noox ñaabal yi muy imaamu juma jile te nekk kilifa koñ bi di nuyu sama rak sama xarit oustaz Mouhamed Keba Ndiaye ak magam ji nekk ci tukki léegi terewut jaar na fi mooy Mouhamadou Matalib Ndiaye di nuyu le ministre Papa kër mbay ñu ngi tàggoo léegi mu téléphoné ne ma xam naa maa ngi ci benn séminaire waaye balaa di ma ñëw muy responsable politique gu Grand Yoff, des ministres chargés des relations avec les assemblées di nuyu itam meeru dëkk bi xalifa Babacar sàll ministre eh, di nuyu surtout Adja Aminata Mbengue Ndiaye moom it waxoon na ne dana def tout ak li muy xat yépp ba teew wala muy yónnee terewul ñoo ngi koy nuyu Ah, di nuyu son excellence Babacar Carlos Mbaye secrétaire général de la présidence de la république biig ba may woo boobu minuit jot na di wax ne am na ci li mu nekk mais dana am ku muy yónni waaye bëggul daal ñu tudd ko di nuyu soxna si Adja Aïchatou Ndaw sama soxna soxna grand imam muy sénateur di président di nooru mbooloo mi li di nuyu Cheikha Hajja Aminata Tanina moom mi nga xam ne mooy yaayu mbooloo mi dañ koo sosee ba tey mooy yaayu mbooloo mi di nuyu mboolem jigéen yu HLM Grand Yoff ñi am mbooloo mi nga xam ne ñoo ko taxawal walbati ko nekk dina nuyu azati sey mu jàngalekat yi nga xam ne ñoo fi teew ak euh, ilimaan yi nga xam ne ñoo teew fii tey euh, li ko dalee ci sama sama doom Oustaz Idriss te mu wax léegi wax ju am solo ji euh, wax ji tekki ne fa wax ji jógee xama nga fa fa tabarakallah di nuyu mbooleem encadrement bi ku dalee ci Ousmane Sarr Moustapha Ndaw Djibril Bachirou Diassé suñu représentant bi jógee ba Passy di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ne ñëw nañu fii oustaz Bachirou Mendy waa benn oustaz la moom ci oustaz yi def daawa te mu ñëw fi léegi waaw xalif Babacar Sall mooy meeru dëkk bi ki koy toogal mu ngi fi ñu ngi koy nuyu bu nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy ay kilifa ñoom sama mag sama law bu ñoom ñëpp gis naa leen ak kilifa yi koñ bi yëpp ñi ma tudd li itam gis naa leen ñoom ñëpp di nuyu asati sa yeeg ilimaan yeeg sëriñ si yeeg ñoom sëriñ Mamadou Sow ak ñëpp gis naa leen ñu jógee fu sori di nuyu surtout jeune yi nga xam ne jeunesse bi andak man fele ci yi nga xam ne lu ñu nek ci ñi ñom pap Sylla ak Serigne Ñaan ak ñi ànd ak ñom ñoom gis na len ah, ak ñoomin Ngom ak oustaz Amadou li mi nga ne len di arrestel bande yi te wax ne bu conférence bi pare rek nee na bande yaangi fi bu ngeen soxla opposant yu bari dal di feeñ li ci gën a metti ci ay bokkam Quraysh ci ay arab ay magu sahaba ñoo jóg opposé Ousmane gën jaatari opposition la ñu dëgër la ñoon boobu danaa ci tuddu ah, li indi fitna bee ñi ñiy opposé Ousmane dana am ci tudd dafa am ñu ne Ousmane keroog xare Badar xam nga dafa métti woon ba alquran ne saaba yi dañoo daw istusiduuna wala tuluuna ala ahadin wa rasulu yaduukum am na nag ci saaba yi ñu ñu saxoon dawuñu ku mel ni aboubacar ibn sadiq dawul ku mel ni ali ibn abi talib dawul ñenn ñi shahid ku mel ni talhatu alxayri dawul waaye am nañu dawoon ca xare ba ànd ak ñi daw omar ibn alxataab ci la bokkoon ousmane ibn affan ci ñi dawoon la bokk moo tax liñ ko njëkk sikkee dañ ne ko yow da ngaa dawoon ca xareb uxud wante xareb uxud ña ca dawoon alquran dafa wàcc ne yàlla baal na leen alladina tawallaw minkum yowma altaqa aljamaani innama stazallahum sheytan bi baadi ma kasabu wa laqad afa allahu anhum inna allaha gafurun rahim halim inna allaha gafurun halim kon loolu wartoon nekk gàkk buñ ko sikkee waaye ñoom moom lañ jël premier argument ñaareel ba من عثمان بن ري عمر بن الخطاب نفل عثمان دفكو خليفة عبد الله بن عمر بن الخطاب رأينا نبري موري هرمزان موري جفينتا دومي أبو لؤلؤتا ak ñëpp ñu mu sikk ne laal nañ ci rey Omar rek Abdoulaye ibn Omar doom ji mooy leen rey léegi jullit ñi dajee ñoom ñëpp dal di atte na Ousmane jàpp Abdullah ibn Omar fayu ci moom maanaam rey ko Ousmane defut loolu defut loolu dal di ne xëy na rey gi njumte la ndax ku toog ñu rey sa bàyyi jam ko mu ne lëj ca dee doo ànd teg sa xel xëy na loolu moo tax mu rey ñi mu rey kon nag man Ousmane li may atte mooy dañ ko dañuy def dañuy déyee ñi mu rey ñëpp dindi alali boppam moom Ousmane déye ko lii bokk na ci liñ ko sikkee lu tax fayu ñetteel ba ci fitna bi ñu teg Ousmane Omar ibn al dafa ne woon kibaaru saxaaba kenn du tukki génn Xijaaz ndax bu ngeen tukkee tasaaroo ci réew yi léegi tey du am ñu may diisool yéen ñi àndoon ak yonent bi léegi tey du am ñu may jàppale léegi tey appel bi ñuy def jëmee ci lislaam du am ñu ma jàppale magistrat bi yëpp Omar da leen a ayoon tukki ñëpp mu nangu seen passeport kenn du dem Ousmane ba mu ñëwee jox leen liberté ñaa dem Syrie ñaa dem Afrique am na ko xam ne ñu ko sul ci Tunisie fa la dee yëpp ñu tasaaroo liberté boobu ñu ne lu tax Ousmane def ko loolu ci liñ ko sikkee la bokk ñeenteel ba moo di waa Shura muy juróom benn yi ñu bégaloon aljanna nga xam ne ñoo mottali ñeentee fukk ñoom ñoo diisoo woon ba ne Ousmane la xalifa ñoom it demoon nañ ba daal xawatuñoo jubóog ni Ousmane di doxale mooy Ali ibn Abi Talib Talhat ibn Ubaydillah Zubayr ibn al-Awam Abi Waqas juróom ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo tànnoon Ousmane def ko xalifa ñu bokk ci ñu yàlla yeneen ti bégaloon ci aljana waaye ñoom nag nañu xawoon a opposé Ousmane de nekkutoon lu garaaw nekk toon lu garaaw ndax ba Ousmane nekk ci danger Alioune dafa yebal ñaari doom ñu ñëw di ko garder kon ñoom li ñu opposé Ousmane ba sit la woon quelque xalaat la woon juróomeel bi ci liñ tumal Ousmane mooy Abu Zarin al Ghifari benn suufi la daa amutoon jabar amul doom dafa dëkke woon jaamu yàlla rek ne ci jàkk ji bu yent bi sottalee woo ko mu lekk Abu Zarin nee nañu moom dafa am problème ak benn yahud muy kaabul axbaar yahud bu doyoon waar la ba ma amee problème abu zarin dal di ne kaab yëpp nal yahud yow doomu yahud bi ah ba loola amee nag kooku merab kalaame ci Ousmane Ousmane dal di digal abu zarin mu génn madina maanaam mu gàddaay lii bokk na ci liñ ko contré lu tax mu génnee abu zarin naam كبار المعارضين ميكو اوبوزي ابو درين الغفاري ما تخموتي غنا دغر ات عبد الله ابن مسعود دا دا فجل كامل ييب لكلين بام ديس كامل بيم بند مام عثمان كامل ابن مسعود من نكو لك تا توب بي لول بوك ني تي لين جاتال اكن عمار ابن ياسر ñoy ñi mala tuddal ñoy kibarul muarada mag ñi opposé won ci sahaba abou darin al ghifari abdullah ibnu masud amar ibnu yasir ñii la abu musa al ashari bokk na ci juróom benn bi li ousmane def mooy relevé ne abu musa al ashari ca basra mu fa nekkoon gouverneur dal di fa fal abdullah ibnu amir al amawi juróom-ñaareel ba fali na walid ibnu uqbata ca adrbijaan fal fa saïd ibnu al aas al amawi kii walid omar waxoon nañ ko fali juróom-ñetteel ba mooy jubóowuñ ak Ousmane ci politik barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa mi mun faydu tiijaan jox ñu ñuy naan